sant bu baax baax ci kàddu yu rafet yi. Mhm. seetla gi bala ñuy ñëw ci loolu ñuy njëkk a sof rek ci. Mhm. Eh, jëm bi boobu nga doon wax. waaw xam nga Sëriñ Tuubaa ab liggéeyam lépp daf ko tënk ci ñetti yëf. waaw al ilmu naafi. Mhm. wala amalu saalix. wala mardi. xam-xam bu am njariñ. jëf ju baax. teggin yu ñu gërëm waaye xam-xam ba it balay am njariñ day fekk ak sell lal ko muy xam-xam ba na ko sàkku ngir jëmmi yàlla dong mm-hmm. jëf ji nga jëf ngir jëm yàlla dong mm-hmm. bu dee jëmmi nag teggin ne nag mooy mooy mooy ixlaas yi boobu ndax mooy teggin sa digg sa borom mm-hmm. teggin sa digg sa bopp teggin sa digg say moroom ixlaas boobu nag dafa séddli ko ñetti xaaj te ixlaas dafa dafa bokk sax mën naa xam nga murit Sëñ Tuubaa li muy li muy li muy santaane ak muy xasida ak lépp ca buntub sant yàlla tàbbi hmm. dafa bokk ci sàtti matuk sant yàlla ak sellu sant yàlla hmm. mooy ak sellal lal ko moom mu teg ci sellal ixlaas hmm. eh, wa udda lima lima lihul ashxaasu mu ne nag sell googu dafa séddli ko ñetti xaaj am na sellal gu kawe lool nga xam ne moo ci gën a kawe mm-hmm. am na sellal gu digg doomu mm-hmm. am na sellal gu suufe lahu ladal xawmi salaasa darajaat mm-hmm. ulya wa wusta summa dunya bi uh-huh. sellal gi gën a kawe nga xam ne moo gën a kawe ci mboolem sellal yi mooy jëf ji ngay jëf bu dee jaamu yàlla mooy jaamu gi ngay jaamu yàlla na nga koy jaamu ngir ne rage yaa na ko sun bon ni màggeeg na mu réy nam toll donte diglewu ko woon mhm. donte diglewut diglewut ak jaamu mhm. du tey nga yëg ne yàlla ko yeyoo ak jaamu la nga jaamu ko rek nga xam ne bu ko diglewutoon it nga xam ne mhm. sunu bon da bind wàcc la ci kaw suuf di la dara it du tee da nga ko jaamu ngir wane ne rek ko yeyoo jaamu la loolu mooy sell gi gën a kawe bu dee ñaareel bi muy sellal gi digg doomu mm. mooy kiy jëf ngir na dañ ko ko digal mm. waaye na bu ko yàlla diglewutoon du ko def mm-hmm. kon da ko def ngir ku njëkk na moom bu ko yàlla diglewutoon it da da ko def mm-hmm. kii nag moom yàlla da ko def ngir ne mm-hmm. mooy sell gi digg doomu bu dee gi mujj gi nga xam ne a suufee moom kii kii kii def ngir ne yàlla da ko digle moom su ca yàlla digge wutoon dara tëkkuwu ca dara ca baag du tee da da nga ko yàlla digle na ko boo ko defee bu ñu lay fay mhm. waaye gannaaw na ko ko def mhm. lam lay tere it gannaaw sun boon daal buur moo ko tere danaa ko bay donte ca dara mhm. ku ñetteel ki nag mooy bi ci gën a suufee te baax na waaye moo ci gën a suufe nag d'accord mooy kii jaamu ngir bëgg njariñ maanaam suñu borom ne ku ma jaamu tàbbi ajana nga di may tàbbi sawara nga di ko bañ may ngir mucc sawara boobu mooy bi ci gën a suufee lu si dubaa naan oliyaahu an taabudahu ijlaala wustaahu an taabudahum tisaala duniyaahu an taabudahu xubba sawab ka jannati naimi aw dafal iqab mel ni kon moo tax nag mu teg léppam ci ci ci ñetti ci ci ci ci ndigal muy muy jiital yéene mm-hmm. ak jëf mm-hmm. ak wax ak jëf mm-hmm. ak sax ca ñetti yomb na waaye bu mujj bi mooy sax ca mooy la jafe mooy sax ci lu baax lu jafe la waaye nag loolu la Sëñ Tuubaa tàggate murid yi ba ñoom maanaam mooy ak way mooy way deng ci mbir nga si mbir lamin mii mbubbam mii fi ne kenn mënu ko ko soppiloo mhm. col colkaam gii may teni di travaayam mhm. may waajtaayam lu ma de kenn mënu ko ko soppiloo loolu mooy ak way nga xam ne la nga xas gëm ne ca moom kenn du la ca soppi in wi waxul wafaan walazim mhm. taslami mukarraman rumil ola bi kalimi loolu bëgg nañ ca day bu gudd <laughs> xasida yi nag <laughs> mooy gob bi sëñ ba doon bàyyee ci toolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh. man nga ne mooy mooy mooy xidmaam li ñu tuddee xidma ci sëñ mm. Tuubaa moom la doon moom doon liggéeyee di ko liggéey leen saslam nga xam ne li ko may turu abdullahi wa xadimu rasulihi mm-hmm. fam àgg ci ibaada mm-hmm. mel ni kenn fekku ko ci ah, fam àgg ci ibaada muy jaam yàlla kenn àggu fu ko may turu abdullahi mm-hmm. waaye fi mu àgg ci liggéeyal yonente bi sa alayhi wa sallam itam kenn mm-hmm. àggu moo tax mu am turu xadimu rasul Sénégal di fi liggéeyal yonente bi sa sam bari na ak ñi koy yëtte ci liggéey ci àdduna waaye boobu noonu lettre bi ne ci koy teppee donte ñi koy liggéeyal bari nañu mm-hmm. naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu xel wi yu dabiru ayun turis li xekama nga mm-hmm. xam dem na ba lépp lu lu lu muy lu bu ne bu ne gëmm bëtam mel ni koy nelawit maa ngi jaam yàlla xol baa ngi ci alxuraan di ci lañ lañi nga xam la ma wax ñu saas ne waa ay ndoxo kaanatana ba xel bu lam yene mi loolu da ko ko da ko ko wàll da ko da ko ci àdduna waaye bu dee nag liggéey li ñu def saas nga xam ne mooy xasida yi nga xam ne ci la ko doon jëmale mu def ci loo xam ne kenn fekk ko ca faraxtuhu mhm. bi xidamin la saaniya laha min al xidami laysat faaniya dama ko bégloo mu yoon saas ci tagg yu sell liggéey bu rëy mhm. mu ko defal boo xam ne liggéey ba amutum ñaare mooy kenn tollantewu ko mhm. te njariñam du jeex ba mukk nga xam ne dana ba ba ba lim bind ci xasida lam ca def nee na képp ko dem ba jot ne mhm. defal nga yoon saas lu mel li ma ko defal te lépp ci xasida la ko def nax na la oh. sànni naa sa njort ci àll bi la xamal la ma ko defal ku doon man lottu nga ca man zanna annahu yakunu abada yurdayhi billasi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi andiyal xadim bi ma wana an mislihi kullu xadim nii mu doon liggéey sax ci xasida muy di bind jëm ci man di ko tagg ndax ku ne xam na ne bi nekkee ci géej da ko dafa demoon ba séddale ab liggéeyam ñaari xaaj séddale ko ci at mi ci dare li dare muharram mm-hmm. ba ci jumaa de saniya juróom-benn li ñu ci bind lépp tagg lay doon mhm. léegi daal rajab ba ci dul xijja nga xam ne mooy juróom-benn weer yu mujj yi mhm. ñu ci bind lépp bind lay doon euh, julli solaatu sitta bi mat xi sitta loolu mhm. moom jëmmi liggéey ñu sant ci di bind jëm ci njëkkiwu ko hmm. am na ñu ko jiitu ñu ko ah. daan def te liggéey ci liggéey bu rëy xel man cee dem ci ku mel ni Muhammadul Busayri ku mel ne Xasan ibnu Thabit ku mel ni Kaab bun Zuhayr ak ñeneen ak ñeneen ñoom sax mi ngi leen tudd deen tagg ci seen liggéey mi ngi leen tagg mm-hmm. eh, mi ngi leen di tudd mm-hmm. Kaabun wa Xasaanu wal Busayri xat barau mm-hmm. wa kulluhum chiruhu nurun wa asraru kan ba mi door a dafa la dafa leen xol xemem leen mhm. di ñaan yàlla mel ni ñoom dem ba yàgg mu ne mel naa ni ñoom mhm. dem ba yàgg mu ne romb naa leen wa fi matxihi jaawastu kaaban wa eh, eh. kon kon doxin doxin wu gaaw la doon dox ci liggéey gi muy liggéeyoon sax ci ci di ko tagg mhm. ak di julli ci moom tàggoo googu nag muy liggéey mu doon ko defee ci ni ko ni ko ni ko yoon saasam bëggee mhm. kon moom dafa dafa moom defe ni mu ko bëggee mhm. waaye da ko def ni ko yoon saasam bëggee mhm. eh, xadimuhu kamastafa man zanna ni xayra xadim mustafa inni axdimuhu bi mastafa am feneen fu ne kamastafa nam ko bëggee moom kon dañ ci jàngi ñu ne kon li ñuy def li ko liggéey Sëriñ Tuubaa duñ ko defee nin ko bëggeen waaye nañ ko def ni ko Sëriñ Tuubaa bëggee mm-hmm. tool lépp nag mooy tege ca kaw sell gañ doon mm-hmm. junj léegi rek mm-hmm. mooy mu sell loolu nag wax na ci lu bëree bare bare bëri ci ci ci liggéey boobu nga xam ne nee na mooy mbégteem xolam mooy xaside yi mooy mbégteem xolam mooy teey yog bakkanam mooy dalum xel mi itam moo koy dàqal itam lépp lépp lu dul noonu lépp lu mu sib farraxatil xalba dafa xidmatu xayril aalamiina ahmada alay taslima karimin xamida farraxatil xalba wa nafsi tayyabat wa bi makaarihi li xayri dahabat daal wax ne ñaan sama borom itam sama diiru jamono lépp doon bind xasida mooy liggéeyal ko àdduna ak àllaaxira rabbi kaw ni rabbi دعوة ربي دعوة ربي كوني كوني, كوني الدهر خادمه دعوة ربي كوني الدهر خادمه دنيا وأخرى لحبي خدبر الكبدة wax na itam liggéeyal ko ci xasida yi mooy sama diine mhm. mooy sama diine mhm. liggéey li ñu saasam ci bind mooy sama diine mhm. diine xidmatu nabi nabil maqbuli bi ma bi ma li ca la ma tàndal na ma ko tàndalee nga xam ne kon euh, moo doonoon kon li ma juñ jeel bi ne mooy gopp bi ñu doon baye ci toolu yonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne def na ci liggéey boo xam ne kenn fekku ca uhuh. euh, sëñ Mawlaay Bousso am na xes daam goo xam ne dafay daf ci dafay tudd ko ñu wax Yuusufu Nabaxandi yi uhuh. da ko caa junj nee na sëñ da daa wax ne uhuh. yusufa nabaxaani day góor la ndax bi ma nekkee ci géej gi liggéey sama borom saa bu ma geesoo gis ko ci sama gannaaw daan na amte kon ku may jot de ma ne moom lay doon xam nga amte kon ci wax wolof mooy su ma noon am mm-hmm. waaye waxtu ci gannaaw la nekk ndax saa bu ma geesoo gis ko sama gannaaw la la wax <laughs> baru dafa ma te dafa ma te seetlu sunna borom xam xam nañu ko mm-hmm. moo bind Euh, téere bu siiw boobu euh, nan karaam law li yaay jaami karamaat law li yaay mm-hmm. moo ko bind ah. nekkoon ba xam-xam mag doon liggéeyal yoon saa si nii ko nii ko Sëñ Tuubaa doon liggéeyale mooy di ko bind di tàgg ci moom ak di julli ci moom mm-hmm. dem na ba liggéey ba rëy lool ba mu gis ca boppam ba jàpp ne jiit na ñëpp ci liggéeyal yoon saa lii nag Sëñ Tuubaa ko nettali sëñ moo sëñ moo laay di ko nettali ndax xasida gii ma lay wax mm-hmm. sëñ Maola def ci nat li karaama yi sëñ Tuubaa def ci géej gi te ne bépp karaama bu ci indi lam ñi sëñ Tuubaa noppam sëñ Siidi bu su doomam neewoon na ma muy bind xasee googu léeg-léeg ko benn benn benn benn xissa benn benn benn mu ne ko wér na waaye ba ko sëñ bi net li fekkuma fa nga ñàkk gaa fekke ma to du ko ca boole moom waaye yi nga xam lam yi sëñ Tuubaa noppam rek su na baxee ne bi ñu demee ba gis boppam ci loolu euh, bis mu gént wala daal yun saa sam feeñu ko moo xam nam ko feeñoo ci la ko laaj ne ko ndax am na ci kaw suuf ku la liggéeyal lu toll ni li ma la liggéeyal mhm. mu ne ko ah jàmbaar nga de jàmbaar nga lool waaye am na kook day agoo ko sax ci wax <laughs> ba ko ne kooku kan la mu ne ko Ahmadou Bamba tudd dëkk Tuubaa ne keroog la ma si dégg turu Ahmadou Bamba mhm. keroog la ma si dégg dëkk bu tudd Touba ci kaw suuf ca mooma at mu dem Màkka aji waaye ci biir aj gi nag mhm. kum dajal ci xujjaa dana laaj ndax xam nga ko tudd Ahmadou Bamba wala nga xam fu tudd Touba di ko def ba dajale ay Ivoirien mhm. xam nga am na ca Côte d'Ivoire dëkk bu tudd Touba. waaw te ñee fa dëkk Bamba lañ sant kilifa ya laaj ñu ne ko ah xam nañ ko baax a baax réew mañ jógee fa ne. Mhm. la des ca aj ga mu def leen i àndandoo. ba aj ga jeex mu ànd ñoon dem ko diwaar. ba mu àggee ca Touba googee kilifa yam fekk ba ma taa ñoon dañ ko ne Ahmadou Bamba mi ngi wax de Touba ga ca Sénégal la dëkk. waaye jamono yi ñuy wax yoonal dañ ko exilé mooy tubaab yi dañ ko jàpp ndiwu fi. Mhm. mu batale nag ay xedaaya yu bari ay téere bokk na ci mm-hmm. eh, ne leen bu ñëwee na ngeen fexe ba sama addiya yi mu jot ci mm-hmm. ndax dellu am réew moom liban la dëkkoon mm-hmm. Sëriñ Tuubaa na ci géej gi ba dem gànnaar ba dem céyeen ba ñëw njaareem ñu door ko indil xaddiya yi sunna bahandi yi batale woon ma ne nag loolu suñu baa wax ne saa bu ma geesu gis ci sama gànnaaw kon la ko ko may day mel ni waaw pas moom amoon ci Sëñ ba tax koo jógee réew ak réew te mu wóor ba mu demee ko ah, ba àndee liggéey ba la laa tax yu sax di xamal xamul ko ni kon barke ba tey ci barke <laughs> boobu lépp na xasida yi moo ko moo ko ko may dem na ba tagg Sëñ Tuubaa te mosu koo gis bokk na ci la mu wax man faatahu ahmadul muxtaari min mudarin wa faatahu xaadimul muxtaari maxbuunu ci sunna ba xay ne ma ko wax rasulullahi day ñëw na ba jàll raw na Sëñ Tuubaa fa des koy xoole ba mu rawal na perte nga ñàkk nga te moom si jël ci bët ci zahir uhuh. Uhuh. kon loolu lépp nag kon tag day mel ni xasida yi yi mu liggéey si yun saa sam moo ko maye loola may yoguñ ci daraja joo xam ne xam ne wax daraja yu nekk da koy tudd ci na xasida yi ko ko may yooyu nag ba tey ji nag mhm. daraja yem làmboon ma ngi koy làmboo ba tey ku ci mhm. la la wax ne la ab sëriñ da da da da fanaan ne wird mhm. wala muy def ay xalawaat di nga bëgg ci bon lépp mu ci xasee ci lu nga ci wéet fanaanee wird rek lu lépp xasida yi làmboo na lépp ku bëgg leerug yàlla mu ngi ci uh-huh. xasida uh-huh. ku bëgg ak ci yàlla mu ngi ci xasida uh-huh. loo bëgg lu mën a doon àdduna ak alaxi li mu ngi ci xasida yi waaye ca kaw na nga di ko jàng ci sellal mooy pas-pas rek lal ko su waaye da nga ci amee lépp waaye àdduna nag moom waru caa bokk waru caa bokk déedéet mu ngoog waru caa bokk eh, ok قلبي وقال في بالوجه المستقيم